d'abord il faut nous parlions du mot immigration parce que immigration c'est un mot pour les animaux Rabo Ali, nous, immigrés, immigré c'est vraiment nous manquer de respect Immigrés, c'est les animaux du désert ñoo koy def pour chercher des oasis nous sommes tous les ay doomu la planète dëkk la planète terre donc circulation La circulation irrégulière loolu la ko tuddee duma nang ñu japp ay doomu alamu tudd len immigration clandestine parce que tout yi bu ñuy ñëw fi ñom jël yoonu suuf bi di dugg ci suñu dëkk yi pourquoi ñu immigration clandestine tourisme lañuy wax wala aventure ñun ñi bëgg ñu ay ay immigration ñu bëgg ko nang du ay immigré dañoo circuler c'est une circulation nak irrégulière parce que jaarul fa mo wara jaar bugguma kenn def ko ñaanuma yalla kenn jël gal yéenewuma kenn mu dem ba sës parce que dès que ngi nii nga affronté ju dem kooku sës na mais malheureusement amuñu liggéey kenn mënu ko expliquer je ne peux pas donner raison à mes frères qui prennent les pirogues comme eux aussi ils me tout à fait le tort mais ce que je veux dire, c'est toog fii ci réew mi liggéey buñ xaar Macky parce que Macky par exemple dem na Allemagne ne Merkel Sénégal c'est un pays qui bu nekk si jàmm parce que mon traduction n'y a pas amuñ guerre mais guerre du guerre. C'est du La nga jang ba pare am sa diplôme tu am nga dem hôpital faju c'est mooy nga am sa soxla tu sa poche faj ko looloy jàmm la guerre. C'est la guerre. wax ne du C'est kon bu ba tax ñooñu nanguwuñ sénégalais ya fa nekk di leen dàq di leen génne du yoon alors que Macky am na pétrole am na gaz Macky li nga waroon def leer na da nga waroon wax exiger à ce que l'Europe et les États-Unis régularisent tous les sénégalais yi fa immigré am fa déjà 4 ans ñëpp ñi immigré à partir de 2016 2017 da nga waroon a fexe ñu jox leen seen kayit waxuma nag ñu jox leen kayitu allemand wala kayitu français wala kayitu espagnol mais ñu jox leen work permit mooy maanaam permis de travail ñu mën a liggéey parce que loolu moom mooy lii yoon joxal ñafeel ñu jox booy permis de travail loolu moom mooy dëgg parce que ci ay camp lañ dëkk ay camp de concentration ay conteneurs yu ñu jël dajale ko benn lal ngay am ben waañ ñi am lekk ay repas froid su des mbrok ton la semaine bi yëpp mburoog ton la semaine bi ci topp mburoog bulet non mais attends Macky respecte ton peuple parce que tey jii nii yow tubaab yooyu noonu yëpp ñu ngi suñu or soxla suñu pétrole soxla suñu gaz mais ne leen régulariser leen sama doom yi fa ne gars yi bugguñ fa dëkk gars yi soxlawuñ kayitu tubaab liggéey moo leen ñor amoo joxoo leen liggéey mais bàyyi leen ñu liggéey feneen ñafe lool lool mënu ko ñafe makki amo lo loo joxee liggéey parce que sàcc nga tal ak lek ak sa ak say mbokk mais joxal boy ñu liggéey bàyyi leen ñu ñafeel ñu dem liggéey foofu. À ah, 221, une autre vision de la télé.